bismillahir rahmanir rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk yi ñu ngi nuyu ñëpp di leen ziyaara di leen jox seen wàccuwaay di leen ñaanal jàmm eh, ala kulli xaalin tey ñu fas yéene ñëw ci tomb bu am solo niñ ko baaxoo di defee xëy na di jéggul nag fan yi ci ñàkk gee teewlu yenn video yi xëy na xat-xat moo waral ak yitte xaw a bari Euh, tey nag euh, ñu fas yéene ñëw ci tomb boo xam ne tomb bu yitteel góor ñi la te dañuy wax ci lu aju ci góor ñi am jafe-jafe ci gaaw a daanu wala góor ñi nga xam ni dañu am jafe ci wàllum awra ci seeni biir néegi sëy ndax jàpp naa ne ñun ñëpp remarqué nañ ni jafe-jafe yi am ci wàllu sëy góor ñi dafa bëri lum leen di gaar ku ci nekk nag ak sa jafe-jafe ci wàllu sëy am na lu ko waral hmm, ñenn ñi dañoo am problème mentalement ci wàllum psychologique ci wàllu xel moo leen gaar ñenn ñi nag leen dal ñoo ko teg seen bopp ñenn ñi awara bu gàtt moo leen dal judduwaale wuñ ko woon nag hmm, yenn saa yi nag débat yi di xaw a di bëri lool ci ay tomb yoo xam ne jarul di yaatal ci misaal da ngay dégg ku naan yokk awra ñenn ñi ne mënta nekk mbokk yi loolu yanu maalaa la te lu mën a nekk la te bu demee ba ci biir bi dana ko leeral incha allah rabbi awra bu tuuti woon nga fexe ba guddaat loolu jarul di débat sax ndax doom aadama ni ko yàlla bindee li tax loolu jarul débat ñiy naan doom gis nañ am ñoom dañuy naan doom jékki-jékki di neewi di am yaram kon yokk yaram fu mu war a mën a nekk yokk yaram man yokk awra war naa mën a nekk. li tax loolu nag mooy ni yàlla bindee doomu aadama fépp boo xam ne amut yax ci doomu aadama bi mu nekk yàpp ak siddit ak der kase lu mën a yokk la yaxub doomu aadama nag ni ko yàlla bindee mën a su ko yokk waaye lu dul loolu matière bi nekk ci moom mi yàpp ak siddit su dee jëfandikoo yenn produit yi léegi mu yokk awra bu dell nag lu koy waral ci góor ñi bari na am na ci góor ñoo xam ne mballu moo leen ko teg mballu baaxut góor ñu bëri ñu ngi koy def ñenn ñi ñu ngi jël saabu di ko diw seen awra saabu bu ñuy sangoo naturellement ci yaram doomu aadama nga jël ko di ko diw sa sa awra pour mën a yëg bànneex loolu ku koy jëfandikoo lu yàgg da am soxla doo ci man dara te fu la jëmee mooy tële bi ci tobaat fu mooy awra bu dellu loolu la jàpp naa ne bu dara nit ki war na taxam bàyyi mballu bi ci tobaat tamit sa wàllu wér-gu-yaram dootu nekkati en normal loolu ñenn ñi dal na leen am na ñoo xam ne ay pom ay objet la ñuy jël di ci mën a yegg bànneex xam naa dina ñëw ci jigéen ñi nga xam ne ñoom it dañuy def lu mel noonu incha allah waaye tey góor ñi la ñuy ñëw. awra bu dellu ci góor ba tey di naan ndox mu sedd lu bari dina ko waral di sëy naan ndox loolu góor gum dal di nga dem ba yëg ne awra bu dellu mën na laa gaar loolu lu mat di bàyyi xel la moo tax ndox mu sedd ku ko mën a moytu ci góor ñi. na nga ko wattandiku bu baax di ko faral di naan lu bare mm, bi ci desaat góor goo xam ne dangay faral di sëy lu bari lool ndax séddit boo xam ne day dem ak dikk nga di ko forcer di ko xëcc bu yàggee day bàyyi bàyyi googu mën na cee egg ah mujj laa yóbbee ak aro bu dellu moo tax sëy lu bari baaxut ci góor sëy lu bari ci góor la gën a bon donte bon na ci jigéen loolu tamit ci góor la gën a bon ba tey bokk na ci loolu delloo awra mooy góor goo xam ne dangay faral di jugal lu bari te doo daanu ba ndox mi war a génn génnut loolu it góor gu koy def lu bari danay indi ay jafe-jafe yoo xam ne mën na la yóbbu ci wàllu tële Euh, gaaw a daanu ci góor nag benn am na ñoo xam naturellement dañoo feebar ñoom seen dañoo gaaw a egg fan jëm ñoom automatiquement bu ñu tàmbalee sëy rek dañuy gaaw a yëg seen bopp gaaw a daanu du mat sax une minute wala zéro seconde daanaka dañ fa àgg gaan loolu am na góor ñoom loolu dal na leen lu ko waral booy sëy ci wàllu xel la seen xel mi lañ jël def ko ci say bopp te nit ki dafa am sidit bu nekk ci moom boo xam ne moo waral moo koy xiltal ci sëy sidit boobu saa yëngatoo faw góor ki sëy bu sëyee nag automatiquement bu daanoo rek si digg leen di daal moo tax xelam dootu nekkati ci sëy loolu tamit lu lu mat di bàyyi xel la baax baax ba tey bokk na ci jafe-jafe ci wàllu sëy am na ci ñoo xam ni naturellement dañuy wax ne ñoom dañoo bëgg di def lu yàgg euh, ala kulli xaal mbokki doomu aadama yi ni ko yàlla bindee bindee ko pour comme bàyyi ma di jëfandiku nu mu ko neexee ba noppi li sëy ay waxtu wala ay minutes yu baree bari doomu aadama automatiquement ni ko yàlla bindee ci wàllu sëy bu dee koo xam ni feebaroo dara jot la lu euh, tàmbalee ci deux minutes ba cinq minutes naturellement nit ku feebar dara jotu ko loolu baax na ci moom. am na ñoo xam ne dañuy topp nag euh, produit yi ñuy jëfandikoo di ko naan ba tax mu leen juróol ñi mën di yàgg yenn yàgg yi loolu it baaxut. ba tey it bokk na ci lu waral gaaw a télé ci ñenn ñenn ñi dañoo jàpp yenn film yi ak yenn yi nga xam ne seeni xel mu ngi ciy dem day dem ba seen xel day dëkk ci sëy moo daan automatiquement ñoom it foo lañ fekk dañuy gaaw a daanu simila ak saa la ñu daanu loolu it euh, dal na ci ñenn ci góor ñi euh, ba tey it bokk na ci jafe-jafe yi nga xam ne day dal góor ci wàllu sëy mooy yenn produit ak yenn matières yi ñuy faral di jëfandikoo. bari na ci duñ ci tudd yenn nag waaye ñi am xel ñëpp xam nañ ni am na ci produit yoo xam ne ñu ngi koy def ci yenn togg yi di ko lekk loolu góor gu koy lekk lu ci ëpp mën ngaa dem ba tële waaye da ngay gaaw a daanu la lay njëkk a indil foo mujjee mooy tële tële nag mooy dem ba sa Ablaye Njaay bi mënatul jóg benn yoon kooku la ñuy wax tële kooku li waroon dund ci moom daa dem ba dee loolu dal na góor ñu bari am na ci ñoo xam ne avant ñu am soxna la leen dal. te ñun ñi yëngu ci lépp xam nañ ne góor ñu baree bare ñiy laaj ay garab léegi ñu ci bëri amagoon sax fanweeri ay xale yu ndaw yoo xam ne dañuy doog a dugg ci néegu sëy am jafe-jafe ci wàllu sëy loolu feebar la ba tey it lekk yi ci la waral ba tey it ñàkk a dolli li ngay lekk mbokk yi nañu faral di jëfandikoo yi nga xam ne day dolli ci wàllu kàttan bari na ku ne mën nga ko defar sa bopp wala soxna defaral la ko bari na lool jinjeer ak lem baax na day dolli kàttan day dolli ay ndox walla njaan yu manqué da koy dolli ba tey it petit baax na di ko yëy loolu it dana la may ay force yoo xam ne danga mën a tax li deewoon suñu borom dana ko dundalaat mu dund eh, alaakulli xaalin ba tey bokk na ci ndiir baax na di ko jëfandikoo ñaam ay pom banaan yooyu ay fruits yoo xam ne naturellement day am lu muy dundal ci nit ki ba tax li dee woon loolu mën a dundaat te bu dundaatee dana mën a def ci nit ki lu bari loo xam ne dana tax lu manqué woon mën a yëg leneen te nit ñu bari duñ ko lekk ba tey bokk na ci li indi jafe-jafe ci wàllu néegu sëy ci góor ñi mooy am na ci ñoo xam ne dañoo néew kàttan mooy ñu ngi doon mën normal waaye dañoo dem ba ci yàgg lañ mënoon mootuñ ko am na ci ñoo xam ne dañoo dem ba dañoo mujjee télé am na ci ñoo xam seen awra sax mu mujjee dellu ñoom dootuñ jugalati ñoom télé spécial kon télé ak néew kàttan du benn ñu bari ñu koy jaawale mooy la ma doon mën dama ko mën a léegi nag danga koy yokk yokk gi nag naturellement yu koy yu koy yokk ñu ngi fi am na garab yu bari yu koy yokk naturellement te doo ci am benn jafe-jafe li ko waral mooy li doon dund moo dee lu dee nag mën nga ko war faj ba mu dikkaat dundaat normal euh, ba tey bokk na jafe-jafe yi ci wàllu néegu sëy góor ñi bari dañoo topp seen bànneex soxna di jël yenn produit bi di ko jël seeni seeni ablaay njaay loolu it yóbbee na leen ay jafe-jafe ba tax ñu mujjee néew kàttan mbokk yi lu toll ni ay mande fraîche ak yeneen xeet yi mel noonu ay jinjeer ak yeneen yi mel noonu yu jëm ci biirub doomu aadama nga di ko jël di ko diw ci sàkkaras góor xool leen lool boo koy lekk mbokk yi ni mu mel si sa biir ni muy safee ni muy mettee nga di ko jëfandikoo pour mbëgg a yëg bànneex foofu dangay ngay mujjatale ndax lu ci nekk dafa am fu ko tax a jóg ku sa bopp di métti ngay faj biir nag jàpp naan di nga yéex a wér loolu da nga koy naan ci biir mu am lum am lum dekkal ci biir di ko dundal par rapport di ko diw ci ay sàkkar yooyu ay jafe-jafe lay jural góor te góor ñu bari ñu ngi ciy dee waaw nañ ñu jigéen ñi nga xam ne dañuy jël pat ak xeeti élevage yooyu di ko dugal seen kanam yi jafe-jafe yi mu leen mën a jural nañu ci ñëw incha allah rabbi kon yëpp ay danger la yoo xam ne góor ñu ngi jànkonte ak moom ba noppi di ko wéyaalee di bëgg lu neex sëy mbokk yi du lu ñuy lekk du lu ñuy naan sëy gu bari baaxut waaye ñàkk koy def baaxut kon alwasatiya dafa am solo ci mbir mooy digg doomu mu bañ a bari lool waaye bañ a néew lool kon loolu it mbokk yi nañ ci bàyyi xel kon nit ku ci nekk yaa organiser sa dund di xam lu baax ci yow nga di ko lekk di xam yoo xam ne dalay gàllankoor nga di ko motandiku nit ki da ngay xam li baax sa wér-gu-yaram bañ a xool li neex dañu bëri dañuy xool li neex bañ a xool lu baax am na ci ñoo xam ne la leen jafe woon moo dem ba di leen di ko gis am na ci ay góor ñoo xam ne tey jii bu ñu gisee jigéen rek dañuy daal di seen bopp loolu am na ci ay góor ñoom yàlla moon na tolloo waaye nag ci seenam xel leen jël travail ci loolu ba tax ñu am problème problème boobu pour mën a yëg di gaaw yëg seen bopp. yooyu bokk na ci di wattandiku yenn jotaay ak yenn mbir yi nga xam ne da jural danger yooyu nga xam daf lay yóbbu ci nga am jafe-jafe ci sa wàllum dund ci sa wàllu néegu sëy ndax fekkente ne yàlla dogal na. nit ki jox nañ la soxna mënoo ci dara te jigéen ñi moom ñëpp xam nañ ne lu ne mën nañ ko muñ wala li ëpp ci jigéen ñi bokk ñoom mën ngay bañ a jox ñu lekk mën ngay waay jox ñu naan waaye ci biir néegu sëy li ngeen war a jëflante mënoo ko moom jàpp naa ne jigéen ñu bari mën ñoo ko toggaale ci kër ñàkk lekk ñàkk naa amul jafe-jafe moom waaye war a yëg sa bopp ci wàllu sëy sa borom kër soxla la ngeen war a jëfandikoo mënoo ko loolu ay gàllankoor la yoo xam ne day indi jafe léegi néew kattan googu nag am na ci ñoo xam ne hémorroïde dana leen def ñu ñu def ñu néew kàttan am na ñum dal am na ci ñoo xam ne jafe-jafe ci wàllum ndoxu siiti def na leen ko ci néew kàttan ba yóbbu leen sax ñu am jafe-jafe ci wàllu ay wallax yoo xam ne ni war a dundee dëggantaan dundewu ko loolu it lu mat di moytu la mballu nag bëri na ci góor ñu koy def ku ko mën a bàyyi na ko bàyyi ndax dalay jur ay jafe-jafe di eh, ci desaat ñi nga xam dañuy jël seen loxo di ko laaweeg seen awra eh, mbokk yi awra dafa am ak loxo dañoo dëppawut ndax loxo dafa am tooke bu nekk ci moom bu ko yàlla mooñaale saa boo koy laalee sa sa awra rek am na ay virus yu muy bàyyi ci moom virus yooyu day dem ba day rey sidit yi sidit yi dellu ba bi pour mu ñëwaat day problème la moo tax góor goo xam ne dangaa mballu ba sa awra tuuti moo gën a naqaree faj ki góor gi nga xam dafa jékki-jékki manque ay vitamine ba awraam dellut ndax parce que liy problème mooy virus yi jugee ci loxo bi moo dugg ci sidit yooyu te virus yooyu day rey sidit yi da koy delloo fa mu jugee woon mu dellu fa góor ñu baree bari loolu dan la leen dañoo xëy xëy rek awra tuuti lu bari du jeex kon mballu conséquences yi nekk dafa bëri lool te bëri na ñoo xam ne pour ñu faju ci lool dañu am problème kon mbokk yi ngalawaay nañuy moytu suñu loxo yi di ko laalee li nga xam ne mooy awra góor ñi ndax yooyu ay jafe-jafe la yoo xam ne kum dal pour nga génn ca problème la bi ci toppaat yenn film yi ñi nga xam ne ñu neen ñaa ngi koy seetaan ci góor ñi wala jigéen ñi pour mën ca yëg seen bopp lool it amul njariñ nit ki li muy mën a yëgee boppam ci nat ci morom nitam la nekk waaye nekkul lool léegi yooyu nag ñu bari dem nañ ba tàmm ko ci góor ñi dangay dem ba dootoo amatee soxna dootoo mën dara ndax parce que li nga waroon a liggéey pour mën koo yóbbu fa mu jëm danga koo def ci àll bi li nga war liggéey sa ko nag boo ko fayee ay bor nag ba mu jeex tàkk doo dese dara da nga dem ba am soxna doo ci man dara loolu ñum dal bari na yooyu it ay xeeti jafe-jafe la yoo xam ne e, góor ñi ñu ngi koy jànkoonteel te ñoo ko teg seen bopp ba tey it góor da ngay war di lekk lu baax ci sa wàllu yaram di gën di moytu yooyu jëfandiku yenn yi tux baaxut tux day néewloo kàttan góor moom naan sàngara ak mooy yàlla yooyu xeet yépp day xeet yoo xam ne mën na dem ba yóbbuloo nit ki ci new kàttan mooy yàlla nag buñ ko waxee buñ ci jublu mooy góor gi jaxasoo kudu sa soxna takkoo ko ngay jaxasoog moom loolu boo ci dee dem daf lay jureel néew kàttan ba tey tux dafa am yu muy ci nit ki ci biiram yooyu bu ko yàggee def day dem ba day néew kàttan loolu baaxut ba tey it bokk na ci naan sàngara ndax suñ borom lu mu ñu tere rek am na lu tax mu tere ñu suñ la bëgg hmm, waaye lim ñu waxoon wa ismuhuma kon lor gi moo ëpp njariñ li kon bu nu suñ borom ne nee ni baaxut bàyyi leen ko innamal xamru wal maysir wal ansa wal azlam rëjjun min amali seytaani fajitani buuhu kon yàlla daf ñu waxoon ne xeet yi mel noonu moo xam sàngara wala carte ak wuureeg xeet yi mel lépp dafa araam neen ko mbiru seytaane la kon gis naa bi ni ko yàlla teree xam na ni wér-gu-yaram nit ki doomu aadama moo ci nekk su ko doomu aadama bi day def nag wér di ndar yaram la koy jural kon yooyu it yu mat di bàyyi xel la bu baax a baax a baax kon am na ci ñoo xam ne nag dañuy bëgg lu rëy lool li am solo mooy awra li nga soxla li nga bëgg mu mën koo def loolu mooy ci am solo waaye am na ñoom dañuy bëgg lu gudd lool bëgg lu rëy lool bu dee nag koo xam sa awra dafa dellu mën ngay def ay jéego pour yu ko indiwaat loolu moom ci benn jafe-jafe loolu dara nekku ci waaye sa awra mel ni mu war a mel nga bëgg lu ko gën a gudd yooyu ay teg coono yoo xam ne yàlla tegula ko loolu it jarut di guddal wala jarut di mettil yenn metti yi ba mu lay jural ay yenn danger yoo xam ne dana la jural ay jafe-jafe kon doomu aadama bi ku ci nekk yaa war a sàmm sa bopp war a organiser sa bopp ba yenn jafe yi nga xam ne mu ngi lay gaar nga mën ko wat sa bopp soo ko wat sa bopp nag lépp la dal yaak sa bopp kon sëy lu am solo la ci diggante góor ak jigéen waaye it góor da ciy def doole ji am solo ndax coono yi ci gën a métti wala yi ci gën a am solo yu ci ëpp ci góor lay bàyyi ko moo tax góor mooy def doole léegi doole jooju nag boo ko defee ba noppi dangaa war a toog ab diir bu soree sore pour doole ji nga demoon ji nga ñàkkoon jooju mën a dikkaat ndax nit ki bii say léppam day taxaw ndox mi bu dee génn ci moom léppam day jóg léegi site yooyu noonu yëpp day day concentré wu léegi loo xam ne ñun la bu concentré wu normalement pour mën a vingt quatre heures lay doon yow matagul sax dix minutes wala quinze minutes nga bëgg ko cee xëccaat bu yàggee day bàyyi kon lépp loo xam yaa ngi koy xëcc bu yàggee day dagg te bu daggee nga am problème dagg googu nag am na ñoo xam ne àgguñ ci waaye ci lañ jëm ndax boo demee ba Ablaye Ndiaye bi dellu wala Ablaye Ndiaye bi la mën a mënatu ko rek bu yàggee boo moyut mën naa jëm foo xam ne soo fa àggee du la gënal moo tax loolu it lu am solo la lu mat di bàyyi xel Euh, banaana baax na di ko faral di jëfandikoo ndax day dolli ay ferñeent lool moom it baax na ci ku bëgg a bàyyi tux sax yu say te bëgg a bàyyi tux baax na ci ba tey di faral di jëfandikoo ay raisin raisin baax na même ñam bi baax na ci wàllu sëy karoot ku ko mën nag wutal Nescafé ak laaj ak limon nga boole ko di ko naan loolu dana la dolli ci wàllum néew kàttan ba tey dana la mësal ci yenn jafe-jafe yi ba tey soble ak laaj ku ko man tamit doo koy faral di jëfandikoo ak limon nga boole leen ba mu nekk ndox nga xeent ko boole ñoom ñëpp nga di ko naan loolu it lu am solo la ci wàllu sëy ndax day dolli doole dolli ay vitamine yëpp ay vitamine la yoo xam ne yu baax la ci wér gu nit ki waaye dina la dolli li nga xam ne mooy kàttan loolu it ku ko mën a def baax na ala kulli xaalin jinjeer ak poobar baax na nga def ci lem wala jinjeer ak lem baax na même bu dara nit ki ci wàllu wér gu jëmmi lem baax na ci soo xëyee boo mënee wutal lem ju bari nga naan ci ndiir tamit ku ko mën dee koy faral di wut lu baax la ci wàllu sëy waaye lu baax la ci wér gu doomu aadama waaye lu baax la ci nag ci nit ku koy faral jëfandikoo soo amoon jafe-jafe ci wàllu ay wallax njaat yu normalut ndiir dana ko indiwaat moom it baax na ku ko mën a jëfandikoo incha allah rabbi mën nga koo jëfandikoo ku ci bëgg yeneen laar incha allah mën nga da ngay jël numéro yi nga contacter incha allah rabbi luñ ci xam nañ la ko dolli mooy 78 443 75 27. 78 443 75 27 wala ñi nga xam ni dañoo bëgg xam lu aju ci loolu moo xam ñu am jafe-jafe awra bu dellu incha allah am nañ ci ay tegtal yu am solo wa ilaa ñi nga xam ne dañoo am jafe ci wàllum néew kàttan di gaaw a daanu wala ñi nga xam dañoo mujjee dem ba tële wala ñi xam dañoo mballu ba seen awra dellu yëpp incha allah am nañ ay tegtal yu am solo hmm, wa ilaa ñi nga xam ne. dañu am problème bu sëy incha allahu rabbi am nañ ci ay tegtal ak ay xalaat yoo xam ne incha allah ku ci yittewoo rek soo ñu contacter ci numéro yi dinañ la ciy wax yu am solo waaye nañuy watandiku daal di mballu mballu baaxul dafa xaraam baaxul ci kenn tawat yim lay jural wala jafe-jafe yim lay jural jar na képp di ko bàyyi kon numéro yi incha allah 78 la 443 75 27 bu dee ci aju ci wàllu wallax njaan yi am na yuñ ci liggéey yoo xam ne ku koy jëfandikoo incha allah wallax njaan dina dolleeku normal wala ñi nga xam ne awra bi daa dellu ñu bëgg mu dikkaat wa ilaa ñi nga xam ne dañoo am jafe-jafe ci wàllu say di gaaw yi seen bopp incha allah kon mbokk yi ñu bàyyi xel baax ci numéro yi ñu bàyyi xel baax a baax ci tegtal incha allah di ñaan suñu borom defal ñu tawféex